waaw asalaamaaleykum. honorable doo ñëw nii ah. ngeen na. mais rapidement rek waaw une question rek. waaw honorable s'il vous plaît seeral un peu. asalaamaaleykum voilà euh, honorable s'il vous plaît ñu bëggoon benn tënk rek xam situation tey bii ni ngeen ko dundee ak euh, li xew. waaw situation tey bi comme ñu ko sénégalais yëpp gisee mooy jaay doole bu fi am euh, nga xam ne mu ngi jóge ci Macky Sall ak yenn force de défense et de sécurité yi Euh, tey bu ñu yeewoo dañu gis ne euh, siège u PRP euh, muy Déthié Fall dañ ko barricadé te xamuñu loolu fan nañ ko teg ñu député yi daje ak leader yi ñu décidé ne dañuy dem foofu tenir un point de presse pour wax ak population bi par rapport à la situation bu ñu yeggee foofu au niveau du siège du PRP ñu gis ni fekk fa ay gendarme ñu tere ñu euh, empêché ñu accès bi buñ ñu empêché accès bi nag laaj nañ leen lu tax ñun ñu ngeen tere ñu accès bi ban décision ak ban ordre ngeen jot ah est-ce que da ngeen am décision de justice pour fermer le siège d'un parti politique boo xam ne moo ngi am këyitam yëpp tous ces papiers sont en règle ñu gis ni loolu yëpp tontu wuñ ci dara ñu chargé ñu Euh, gazé ñu fekk boobu ñoo ngi waxtaan ak journaliste parce que jóge na jóge woon nañ si buntu siège bi sax euh, ñu dem di waxtaan ak journaliste à côté du siège donc très assez loin du siège mais ñu fekk ñu foofu gazé ñu dóor ñu lacrymogène donc si échauffourée yooyu mu am seen benn euh, collègue une femme boo xam ne dafa daanu oto jaar ci kawam te boobu gendarme yi ñoo doon dóor grenade lacrymogène donc ci panique boobu ak euh, fuite boobu nga xam ne journalistes yi ñoom dañu obligé doon daw parce que ils étaient pris pour cible parce que soo fekkee ay homme politique ay député ay maire ay chef de parti ñuy wax ak ay journalistes nga door si biir fu ñu taxaw nii actuellement par exemple ñu dooroon fii lacrymogène xam nga ni ñëpp ay tas donc euh, à bout portant et des tirs tendus yoo xam ne euh, vraiment da ngay gis ni lii dafa am intention mun naa ne sax intention pratiquement de donner la mort ou en tout cas intention de blesser donc loolu ñuy regretter di ko dénoncer donc tey am na seen benn collègue boo xam ne actuellement elle est admise euh, aux urgences aux soins parce que euh, da doon def liggéeyam simplement mais ñëpp gis nañ ni tey jamono ji ñu nekk ni euh, terreur ba nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy exercer ci population sénégalaise yi da doon euh, da ko commencé woon ci parti politique comme Pastef mais léegi yematul si yematul si parti politique yi yematul ci leader politique yi ah yematul ci député yi yematul ci maire yi mu ngi koy jubal si ñëpp muy enseignant yi muy médecin yi muy journaliste yi ñooy ñëpp ñoo xam ne actuellement ñoom seen métier ay profession libérale lañu ñoo xam ne constitution bi moo leen ko may loi ak règlement yi ñoo leen ko may ñoo ngi leen di empêcher ñu exercer seen métier pour informer sénégalais yi wala pour euh, même euh, pratiquer des soins donc loolu daal moo ñu jaaxal actuellement donc euh, mu doon loo xam ne vraiment ñoo ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem ñuy ñaan yàlla seen collègue boobu nga xam ne moom moo euh, tëdd hôpital actuellement yàlla euh, vraiment waral cëram yëkkati ko. te conduite ñu adopté c'est très simple ñun dañu organiser ay marches sur toute l'étendue du territoire national. léegi chaque département au niveau de chaque département coalition bi organiser na fa pour manifester am na ñuy manifester Dakar am na ñuy manifester Guédiawaye am na ñuy manifester Kër Massar am na ñuy manifester Sédhiou am na ñuy manifester Ziguinchor am na ñuy manifester Bignona te manifestation yi ñuy ñaan mooy ñu Euh, accentuer mobilisation bi renforcer mobilisation tant que Macky Sall détenu politique yi étage politique yi mu jàpp bàyyiwu leen ñu continuer ci lool tant que Macky Sall euh, persécution be acharnement bu muy def di jël justice di ko instrumentaliser violence bu muy teg ci citoyens yi bàyyiwu ko ñu continuer ci mobilisation bi ak ci manifestation yi donc suba Également, il euh, y a le président Ousmane nga xam ne dans le cadre du procès du détournement de vingt neuf milliards du Prodac woo nañ ko tribunal incha allah euh, lépp lu ci war nañ ko def incha allah pour continuer en tout cas ci dynamique bi parce que c'est une dynamique de résistance c'est une dynamique de lutte te loolu nañuy woo citoyens yëpp ñu continuer mobilisation ñu en tout cas nous les députés de Yewwi Askan Wi donc ñoo ngi ci euh, lancé boobu ak ci dynamique boobu. merci merci jërë ngeen